ñu ngi ci politique bi. tey ñoom ñi ñëpp bëgg nekk président. ñi bëgg nekk ay ministre ñëpp ku ci nekk bëggoon nga tey falu. te ku ci nekk yaa ngi dem ci sëriñ ñu lay ñaanal. ndax yow mën ngaa fal nit. waaw mais tamit. waaw na fekk tamit gis nga booy fal nit. waa na fekk yàlla fal ko ba pare. Mhm. na fekk. yàlla fal ko ba pare. Mhm. Jojo tey ma wax la benn mbir nga xam ko. Mhm. sunu maam yi bu jëkk même buur bu juddoo bu jooyee rek dañu xam ni kii buur la buur la nar a nekk. Mhm. nit balaa muy def di antu day fekk yàlla yàlla yàlla tracé na ba pare. Mhm. il est temps aussi nit yi suñuy waxtaan bu ñu fàtte suñu boroom. tey man si yëñ ma jàngal parce que tamit buur nekkul lu yomb. bu jëkk sunu maam yi bu xale juddoo ñu xam ni kii dafa nar nekk dara dañ koy teel a préparé. dañ koy dugal ko ci ruq parce que xam na ni kii moom moo war a yor lenge bi. Mm-hmm. waaye tey nag nekkatul loolu nit nag mun nga ko ñaanal mu mucc nit mun nag mun nga ko ñaanal mu am ndam ci li mu bëgg. Mm-hmm. waaye fal buur yow. waaye fal ku faluwul. falu ngu xam nga buur daay mal la ba nga dee. waaw waaw. <laughs> xam loolu. yàlla koy fal. te loolu day moo tax dañu ni ñaan bu nangoo sonal boroom. Hmm. buur yàllaa koy fal. buur yàllaa koy far. nee nag politiciens yi ñoom dañuy ut benn poste rek. waaw. après mu am ay temps mu dem. Hmm, hmm. très bien. loolu la. maa lay dégg bu baax. nit day dëggu. waaw buur. ba nga juddoo la ba ba ngay génn àdduna. looloo buur yàllaa koy fol yàllaa koy fol parce que nit ñi bu ñuy naxaanti. Mhm. gis nga nit suñuy waxtaan. waaye bu dee ay yenn yi nii comme. ay wërsëgam yokko waaw ay ay ay ay mu am promotion. yooyu mën ngeen koo def. waaw loolu feeñ la rek ay temps après mukki mais du buur. Hmm, hmm. buur abadan yàllaa koy def. maa la ko wax. li jëm ci wàllu li football yeeg équipe nationale Sénégal yeeg parce que yéen da ngeen mën a xon waaw football daawoon naa ko foowee nag depuis bi ma Guinée nekk ni xale mais naa ko def nag. yéen da ngeen a mën loolu xon. waaye nag daawoon naa moom miire ay cas. miire cas bal du dugg waaw bantu sàkket. bantu sàkket su am na lu ma def bal moom du dugg. lu si des nag yéen a xam nu ngeen koy lijjantee <laughs> loolu moom. lii lépp yàlla <laughs> loolu. lii lépp sant yàlla la. Euh. day wone dooleeg sunu borom. Mhm. xam-xam nga yor de te yàllaa la ko may. parce que tey dangay dem ba biir Brésil ci forêt amazonienne bi. Mhm. foofu ay indien ñoo fa nekk. Mhm. ba léegi ñooñu bu ñu gisee avion dañ naan lii lal la civilisation newul ci ñoom waaye am na la leen yàlla may loo xam ni dañ koy def ci seen àll boobu ba rabu àll duñ leen mën a jege te ku ne xam ne forêt amazonienne segg yeeg gaynde yeeg jaan yeeg lu ne nga fa yàlla may leen loolu nga dem Inde yàlla may leen loo xam ne tamit ba tey du alxuraan du lenn. Mhm. ci xam-xam bu ñuul. Mhm. ñu ciy faj seen soxla di ci lekk di ci naan. bien sûr nga ñëw Sénégal yàlla may ko ci yéen ñii ngeen xam ne ay pël lañu. Mhm. kon loolu yàlla suñu boroom moo koy moo koy jagleel doomu aadama. xam-xam bu wóor la xam-xam bu yàlla may la parce que garab bi nga wax nii. yow san saxaloo ko fa. suñ borom a ko saxal def ci ay xéewal pour doomu aadama yi yow nag nga am xam-xamu xam secret xéewal yi jël ko mhm. jëriñ ko doomu aadama yi kon donc defe naa ni lépp dañ koy sante suñu borom mhm. wallaahi waaye li may ñaan rek mooy ngeen jàppale nit ñi parce que marabu Sénégal a ngi bëgg a tas mhm. yow Thiel nga jóge ñëw ci télé yi parce que àdduna baa fi tollu jamono ju njëkk ji benn télé fi amoon moo tax sëriñ yi daawuñu fa dem bu yeneen tele yëpp amoon ni sëriñ dem ca boo toogee sa biir néeg boobu toog ceel kenn du la fa fekk lii sa xam-xam bi nga doon samaam du la jëriñ tous kon yoon la nga ñëw